kon nag sëriñ bi nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp taalibe yi nag moom màggal gi seen bisa ndax ñoom dañ cee la sëriñ Mbàkke bu soo waxoon rek ñoo ko seetoon ba mu doññ suñ duggee suñ borom kon lépp lu ñu wax dañ ko war a gëm kon taalibe yi ñoo jaayante seen ñun ñun taalibe yi ñoo jaayante suñ digg ak suñ Tuubaa ishtara moom mu'minina neen wa amwaalahum bi anna lahumul janna kon ñun moomatuñ suñ bopp ndax suñ borom kat ba muy jënd ba muy jënd bakkan yi anfusahum wa amwaalahum la waxoon seen bakkan ak seen alal yëmu ci alal ji rek kon moo tax màggal gi dama waxoon ne nit ñi buñ doon ñëw bu ci seen bakkan doon doon dese jaral na leen ko kon loolu fu tënk lu tënk fu wóoru wóor la du du xarul dara waaye pëseef ak dogg ak ngëm ak ak ngor mooy àgg foofu ndax kenn ku ci ne asgor bu waxee de sàmm la mu wax te ku ci la la indi ci sëñ bi yaa ko waxal soo te sëñ Tuubaa wóor kenn forcé wut kenn daa jug rek dox jëm ci yoon ñëpp jug topp ko kon nag nañ xam ne képp ku yàlla defal tawfeex ba nga wëstu ko rek war ngaa sant yàlla bu baax rawatina nag bis bii ku ci jëf rek war ngaa sant yàlla danaa ko dil soit bu may jeexal kon sëriñ bi sant nañ ñëpp sant nañ ñim seqal islam bi seqal sant ñim seqal réew mi waaye sant ñim seqal yoon yoonu murit bayu ci kenn di sant nag kuréel gi nga xam ne mooy commité organisation bi nga xam ne ñoo yoroon taxawaayu liggéey màggal gi ni ko suñu bokk yi tedd yi waxee di sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Mahmoudan Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké mu Serigne Abdoul Khoudous ndax seen teewaay ak kilifa yi ci des yëpp bu ñu xasee teew rek da yóbbaale lépp ndax Serigne Touba noonu la doxale woon yoon wi moo tax comité bi du kuréel gi nga xam ne mooy saytu màgget gi bañ koy bañ ci jotee ndigal itam ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñu war kilifa yëpp kenn ku ci ne tànnal ñu muy njabootu Serigne Touba gi ak ñi nga xam ne bokki sëriñ bi lañ. door ko nag dem ci ñi nga xam ne Cheikh Serigne Touba lañ kenn ku ci ne Serigne Touba dafa defar tofal la ci mbooloo ñu jël seen ñenn ñoom itam ñu wutu ñu jëriñ ñëpp. loolu itam lañ ci jublu rek mooy ni Serigne bi daa doxale ñoo xam ne yoon wi moom lu mu yàgg yàgg l'islam tajdid lañ koy def waaye kenn du ko moderniser. inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli l'islam kenn du ko moderniser ndax suñ boroom mi nga xam ne moo eh, indi diine lislaam def ko muy diine ju mujj def ko waxit ne wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu inna diina inda allahi islaam suñ borom bi def loolu nag moo tax Seydina Aboubacar daa wax ne inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli yoon wii di yoonu Serigne Touba itam doxeenu jamono ak bëgg nuroog jamono ak bëgg dab waa jamono waruñoo jéem a soppi suñu doxin ndax lii ñu sëriñ tubaa tànnal nekk ca ba ñibbisi Tuubaa ñam ko séqaloon ànd ak ñoom liggéey ba nekkoon ci sosoo ko yoon ba yoon ak sujet kenn mënta indiwaat lu ko gën a jub kon li ñuy ñaan mooy yàlla nañ suñu borom saxal ñu bañ ko wàcc da bañ ko génne bañ koo génne loolu mooy tawfeex yi cun waaye ni ko sëriñ bi doxale woon kenn mënta indi ba àdduna tukki du ko gën a baax li nga xam ne jabartam gi jëmbatoon nañ ko fii tam ak ñañ ko àndaloon ndax ku ci ne daa am ñu ko àndaloon mooy biir yoon wi yëpp nekk wenn say ba yoon wi agsi fi tey loola kat nañ xam ne Sëriñ Tuubaa loolu la ñu defal mandarga moom ñu def ba ku ñu gis xàmmee ñu ku seen taalibu Sëriñ Tuubaa mu dox nga xam ne taalibu Sëriñ Tuubaa ngi ne dox loolu kat nañ xam ne mooy suñ jiglaay te mooy suñ kaaraange la nga xam ne waxoon na ko ci kàddoom nee na ko ñëpp bàyyi xel mooy ñi dëkk ci dëkk bi ak ñi ñëw ci dëkk bi na ñi dëkk ci dëkk bi nee na ñoo am tawféexi dëkk ak Sëriñ Tuubaa nee na ñoom nag nañ xam ne li ñuy wut lépp ci suñ biir lañ ko mën a amee nee na ñi ñëw ci dëkk bi itam di fekk si dëkk bi te àdduna yékkati leen nee nañ xam ne lu ñu wut ci dëkk bi dañ ko wutee ci Sëñ Tuubaa ndax nee na bu ñu ko wutee ci nit ñi duñ ko am wala feneen la leen di yóbbu foo xam ne euh, danay danay yàq seen mission ñoom yàq mission nit ñi li leen booleeg Sëñ Tuubaa kon nee na ñëpp nañ ñu bàyyi xel ñaar yooyu ñu ñëw ci dëkk bi lu ko ñor la nag noonu la ko bàmtu ñi ñëw ci dëkk bi nee buñ jéem a sàkkoo wut ci dëkk bi dara lu wut wuti ko Sëriñ Tuubaa ñi nekk ñi nee na ñi nekk ci dëkk bi itam buñ nongu buñ nongu kenn di leen wute wute wute wute dëkk bi ñoom itam nañ doyloo Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen fi tax ñoom ñaar bu ko ñëpp defee day noppaloo kon loola mu delsi ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon waa daayira Hizbut Tarqiyyah ne leen lépp leen lépp lu leen jaayee Serigne Touba na ngeen ko nangoo jënd waaye yéen bu leen nangoo jaayee Serigne Touba dara loolu di ab bind boo xam ne ñëpp ko war a teg seen kanam waa daayira wilaaye ñoom itam ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax ba liggéey bi tàmbalee ba nëgëni ci commission Serigne ma Mariam lañ ajo waaye seen yitteeg seen taxawaay ànd ko daayira mu xaduma xidma mës a soppi ko kon bàyyiwuma kenn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ba ci daayira ñi nga xam ne ñoo ñoom la Serigne Sall tudde noonu Touba li abdin muridin sadiqin lahu ca Serigne Abou Serigne Cheikh say jiite ko nga xam ne li tàmbalee première safar bi ba màggal gi des ñett fan ñoo ne ci kër Serigne Touba ga ñoom it kenn gënu leen sonn ñëpp ñëpp rek waaye ku ci ne rek Serigne Touba ngay jëfandikoo. nit bu fekkee wóor na leen daa juum te nattable na daa juum itam nga fexe ba jéggal ko ak xam seet lu baax la nga xam ci moom nga seet wax ko. loolu mooy li am solo waaye lii xew ci jamono léegi euh, occidental yi ñoo ko indi bu nga gisee sëriñ bi daa bañ daa bañ lépp ci la tab bi tanasur moo indi yëpp ay wax sa xalaat ak kenn ku ci ne jàpp ne la jub ci sam xel da nga war a doxe te loolu du diine mbirum Sëriñ Tuubaa du noonu ak taalibe ak taalibe Sëriñ Saliou daa wax ne ak taalibe am xel du ko mat ndax allazina yu'minuna bil ghaybi yaa tënk sa bopp nit ki gëm lu mu gisul tegu ci bëtam bu fekkente ne day bëgg dem ka àjjana kenn da ci teegoon bëtam àjjana bu fekkee da ngay dem ci xel rek àjjana kenn mus ci teg sa bët sawara kenn mus ci teg sa bët kenn mus ci teg sa kenn mus ci teg danga koo gëm kon diine nañ xam ne diine du xelum kese diine dafa am ay fondement fondement yu yoo xam ne loo ko téye bul xool la jub ci sam xel nga jàpp ne dangaa war a àtte sa diine ci sam xel ndax junni nit bu ñu newoon fii kenn ku ci ne ak sa xalaatu bopp mooy xor xoriyatu taabir bi ñuy wax loolu nag boo ci xasee ba dugg loolu du sotti kon loolu xew na ci jamono waaye buñ ci roy tubaab yi tontonte yeeg wax yeeg yëpp yoonu mu kenn xamulewul kenn xamewu leen woon loolu kenn xamewu leen woon wax yu bari yoonu ci jëf lañ leen daanawee te fuñ àgg itam jëf moo fa àggale waaye yaakaar naa booy xool njabootu Sëñ Tuubaa gi sax ñi ci suñ boon defaroon fasaaxa ñu néew néew la kon yoon wi ay wax tëyewu ko te saa suñ gënee ŋàññi yoon yi gën a ŋàññi Sëriñ Tuubaa seen pëstéef di gën a yokk nit ñi seen pëstéef Sëriñ Tuubaa ak seen doogu ci moom màggal gi wees wane na ko kenn mënu leen la ci mbirum Sëriñ Tuubaa moo tax jëru sax sonn jërul xalaat ndax lu dox lu ëpp téeméeri at fu ne jaar na fa fu ne jaar lañ ko fa pexe yu ne def nañ ko waaye saa suñ xëyee mbirum suñ Tuubaa di ngeen yokk loolu ajuwu ci nit ñun ñi fi ne ñëpp di taalibe suñ Tuubaa buñ fi bàyyikondoo woon tey tey ñëpp de jógandoo fi dem àjjana it ndax loolu suñ Tuubaa ko di moo ñu ko dig moo ko digga te ci lam ñu doomam laa ko digg buñ ko defoon ne dara du sikki ci yoon wi ña suñ Tuubaa di indi ñoo ñoo ñooy dàq fuuf ñi ko ñi ko indi ñi fi newoon loolu kon mbirum sëñ bi la duñ ñun waaye sëñ bi la kon loolu na ko na ko ñëpp gën a bàyyi xel gën a góor góorlu ci yitte yi ak positif yi